ce mois la depuis ce tey c'est moi qui préside l'administration des des non-alignés. ok des dixièmes donc c'est moi qui préside euh, à partir de du 1er juillet. kon daal yéen génn ngeen Yewwi Askan waaw non xam groupe parlementaire bi il faut attendre encore. Euh, mhm. beneen kii mais génn ngeen pour l'instant. waaw ñun ñu ngi si noonu alignés nous sommes 18. les 14 de Taxawu. bis mhm. Pape Djibril Fall Thierno Alassane Fatou bu Youssou ak euh, Marie Théoune du PUR. de de réew mi. 18 18. ok waaw donc euh, c' est moi qui. président kon benn événement pour ngeen bu amoon cinquante sax doo am. ok bokk na nag ci réforme bi. du ñu am groupe parlementaire. fekk na ci réforme bi. donc problème bu mënoon bu bu bu waroon mun a ñàkk am. tu vois c' est un problème boo xam ne c' était très facile à régler. Mhm. ba nga xam de effectivement on pour politisé le débat avant mu ñëw assemblée. parce que am na ko ma wax loolu mu ma est-ce que da nga dégg avant ci assemblée da di wax est-ce que déggoon ngeen Ousmane Sonko wax. cest xam nga yooyu yëpp euh, est-ce que déggoon député yi bon c'est que amoon na débat yoo xam ne nag sanu ñëw ci presse bi kenn ñëw ci wax mais le problème pourquoi c'est complexe mooy ci crise nag yu bëri jànge y a des choses qui sont sorties que beaucoup na savaient pas euh, intérieur bi ñu ñëpp d'accord nañ ko. j'ai dit à un journaliste notre part de responsabilité mooy bi ñu ko dénoncé wax ko xeex ci militaire yu dugg fii jëf yëpp ce qu'on devait faire mooy li lii kiy waxoon nu mu tudd Mamadou Lamine Diallo xam nga ne woon na dañuy porter plainte xam nga boo defoon action boobu rek ko affaire réglé wu na mais ñun policiers des fois dañuy wax benn wax comme ni ma Adama Adama sànnoo xeer mais bi ñu ko waxee pare après y a pas eu de suite on a continué maintenant avec. c'est règlement intérieur kon xamoon nañu ne bés dina indi coow. Mhm. et tous les jours mu di coow ah coow bi ci gën a grave sax mooy contrairement à ce que les gens pensent gis nga pourquoi mu am mu am problème parce que le les débats organisés c'est quoi tey déwéw bi day moo Ousmane Sonko ñëw boo calculer boo defee ratio bi chaque député a une minute neuf à dix secondes. une ah. minute dix secondes. waaw ay trois cent minutes. trois cent minutes. 300 minutes tu divises ça par 164 députés bu amul député yu bàyyi kon kenn du wax une minute et quelque mun na fa wax le ministre il a 30 minutes 15 minutes introduction 30 minutes mu lu muy wax 30 30 minutes il ne peut pas faire cette déclinaison beneen bi nag c'est là où ça a été un peu compliqué parce que le débat d'orientation budgétaire ñoom bu ñu defee seen cadrage seen programmation budgétaire dafa benn masse benn manne financière bu ñuy garder buy ñëw assemblée. pour que ñoom li ñu prévoir yëpp man sànnu jonn si je vois que dans le budget am na lu ñu jëlul man si sama plaidoyer ñoom dinañ jël ci loolu def ci def ci loolu amuñu ko. te hmm. malheureusement on n'aura pas l'occasion de sa muy beneen beneen bi mooy c'est vrai que règlement bi Adama wax na ko constitution moo ne moo ne Ousmane ngay ñëw. Hmm. assemblée mooy wax na booy ñëw. man nii laa koy organiser mooy complément bi. Mhm. mais nii laa koy pour pourquoi mu am problème bi ñu so bi ñu génnee premier ministre bi l'assemblée nationale aussi daf ko génne mais bi bi ko instauré waat xam nga Sénégal rek danaan mun na am sax ñu ko def. peut-être que dañ ko def rek ak jikko sénégalais bon léegi bàyyi ñu bàyyi ñu ñu dugalaat ko ci rek mais dugalaat nag mooy yaa ngi dugal loo xam ne c'est une loi. Mhm. parce que un réglementaire c'est une loi organique donc ñi ñi dugal. cette disposition là de l'article 98 ci règlement intérieur bi nga xam ne moo organiser ñëw ñëw premier ministre foofu na leen wax ne def ngeen erreur le le le le l'Assemblée nationale ne reconnaît pas un premier ministre loolu moo taxoon. Hmm. Guy Marius Sagna avait écrit à Amadou Ba bu waxoon buy ñëw. ay ah, la même chose parce que ñun. suñu hmm. règlement amul fenn fu ñuy wax ne boo ñëwee nee koy def moom Lamine Diallo moo en son temps Doudou Wade vraiment ñu koy remercier il nous avait beaucoup accompagné moom ñoom Bamba Dieye on a même écrit un livre il écrit pour que ñu xool naka nañuy tëggawaat c'est là où maintenant Ousmane Sonko premier ministre ce qu'il devait faire la constitution lui demande de venir ok mais l'Assemblée nationale le règlement intérieur boo ci sérieusement n'organise pas encore la venue de Ousmane il dit moi je reste su ma paree ma ñëw su ngeen bëggee nag ma ñëw dans les quatre-vingt-dix jours il faut revoir votre règlement intérieur rek il se limite mm-hmm. coow du am.